ab salle de conférence bu mag boo xam ne nii tribune ba mën naa jël lu toll ci junni ak téeméer ci ay doomaadama yoo xam ne ni mën nañu caa toog limaale wuñ ci ñi nga xam ne ñu taskatu xibaar yi nga xam ne am nañu seen saalu bopp boo xam ne ma nga ca kaw li léeg di liggéey boo xam ne nii xal général démb Serigne Sidi Makhtar Mbacké moo ko dénkoon waa kër maam Cheikh Issa Diène rawatina ca ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa kër Serigne Naar Diène liggéey boobule nag ay jàmbaar waa kër Cheikh Issa Diène ay góor ak ay jigéen ñoom ñoo ñooñu lee ñoo jóg guddi ak bëccëg di ca liggéey lu toll ci téeméeri million ak juróom benn fukk nag moom la ñu xayma ni saal boobule bu noppee danañ ko ci xayma ci koppari CFA ci jamono ji wala lu ko ëpp ci weeru koor gi naaj wi tàngu lool poussière bi daal di metti lool ci suufu jant bi ci la góor ñi ak jigéen ñi di wax kër maam Cheikh Issa di jaxase ciment bi ak xeer ak suuf ngir daal di ko yéegal ca deuxième étage ba ngir mën a amal li nga xam ne moom moo di coulage bi tabax bi rëy lool waaye rafet lool te yëggagul ñu taf ci lu toll ci fukki ton ak juróom lu jëm ci wàllum ciment ci coulage bi lile moom la góor ak jigéen ñu jàmbaar ñii xëye tey jilee mënees naa jàpp ne Touba file ak diir bu gàtt dina daloo saal bu mag bi nga xam ne da nekk gànjar gu mag ci ñëpp waaye itam du yombal ndaje yi murit yi gën a mag rawatina yi ñuy defee ci biir dëkk bu sell bi di Touba.